asalaamaaleykum mbokk Sénégal man El Hadj Malick Gakou candidat de la coalition Gakou 2024 maa leen di nuyu di ñaan yàlla waxtu yu mooy wax ak yéen fekk leen ci jàmm yéen ak seen njaboot maa ngi nuyu sénégalais yi nekk bitim réew di nuyu sénégalais yi nekk ci biir réew mi di nuyu kilifa diine yépp di leen jox seen wàccuwaay. dañu war président bi nga xam ne nii mooy giite Sénégal ci juróomi at yi di ñëw président boobu dañ ko war a tànn tànneef bi gën a rafet ma jàpp ne président boobu war nañ ko mandargale yijji ko ku xam réew mi ba pare bëgg sa réew ku mën a liggéey ba pare jub ku mandu ba pare mën a jëriñ askanu Sénégal loolu moo tax man mi nga xam ne nii bi ma yàlla defee ma nekk docteur en économie sama xam-xam màcc ci ni ñuy tabax am réew dama créer sama société bala maa dugg ci administration bi ma duggee ci administration occupé naa fa fonction yu mag nekk naa fa expert conseil technique nekk naa fa conseil spécial nekk naa fa directeur de cabinet bala maa nekk président du conseil régional de Dakar avant may dugg si gouvernement bi nekk ministre des sports nekk aussi ministre du commerce de l' industrie et du secteur informel fépp fu ma jaar ci administration liggéey naa fa liggéey bu rafet te kenn mësumaa giñ dara kenn mësumaa taxal dara jomb naa liggéey Sénégal di def loo xam ne nii jaaduwul wala Sénégal yi rafetlu wuñ ko moo tax bi ma démissionné ci gouvernement le 13 février 2013 ba léegi dama delluwaat sama liggéey te xam ngeen ne man lépp lu ma mës a am jàppale naa xale yi jàppale naa jigéen ñi jàppale naa diine ji jàppale naa way laago yi jàppale naa képp ku ma xam ku néew doole te yàlla def ma mën la dimbali. loolu moo tax bi yàlla defee ma wër réew mi ma xaatim programme bu tudd paas paas boobu li ma ci bëgg a def mooy fexe ba wàññi dund gi wàññi location yi. def industrialisation pour xale yi mën a liggéey ñu tabaxaat mbay mi sàmm gi ak napp gi fexe ba dëkk bi nekk dëkk yoon ak dëkk jàmm ci lii laa leen di woo ma di leen tàllal loxo ngeen ñëw ñu ànd liggéey tabax Sénégalu jàmm Sénégalu naataange président dara la république nag war nañ ko xam ci yaru ci teey ak ci bëgg réew mi loolu ci laa nekk suba ngoon guddeeg bëccëg maa ngi leen di gërëm di leen sant